alors sëñ bi ziar nañ la. delloo ziar bu baax. waaw yéen de euh, am na fan ci ginnaaw gouverneur waxoon ni bëggul benn càq bu fi taxawaale wala benn vélo vélo taxi. Mhm. yéen yi nga xam ne yéen ci càq-càq di yëngu. lan mooy sama xalaat da leen la gouverneur moom euh, duñ duñu duñu duñu bañ tamit aussi du duñu nangu ndax moom wax dëgg yàlla ñoom ci ñu jiite réew mi ci la bokk. mais dañu war a xool rek carrément ci li nga xamante ne ni moom la ñu taxawee doomu aadama yi ndax cest à kenn ku ne ak ci la nga jàpp. am na ci loolu la cay fekk loo xamante ne ni bu ko yàlla dogalee ala kulli aale mën a jure ci mu ci moto yi mu ci oto yi ah, muy fu mu mën a nekk yàlla dogalee ci loolu insécurité bi ñuy wax ci lépp la am cest à nag xam nga ñun moom dañ ne Olof Njaay dafa ne benn benn saako pomiteer benn mun na yàq lépp mën na yàq mun na yàq saako bi yëpp loolu ñun du ñu bañ ne insécurité am na ci te aussi agression am na ci suñu moto yi ñu yor ñun ñun lu ñuy bañ mais kenn ku ne ak liggéey. kenn ku nekk ak li nga gëm kenn ku nekk ak la la jëlee dëkk ba indi la fii ñun ci lii la ñu yaakaar bu ñu gisoon leneen dem dugg ci loolu mais boo gisee ñun ñu ñëw jël suñu moto jënd yor suñu propre xaalis dem suñu propre moyen jënd ci moto ñëw di cag-cag am ci yaakaar moo tax mais juguñu pour yàqal kenn juguñu pour teg kenn loo xamante ne ni ki mooy loolu. waaw kilifa gi liñ koy ñaan lenn la rek d'abord na xam ne moo ñu njaboote te boo nekkee boo jiitee ay xale moom da ngay tëddee nday ji seex. donc ñu koy naan rek te xam ne cag-cag bi am na ñoo xamante ne ñooy dimbali seenee waajur tey koo xam ne jëndaloo ko moto mu débrouiller moyen boppam jënd moto comme manque emploi bu ñu fi doon wax tax ndaw ñi génn le 23 mars doon xeex yow nga jënd sa moto di def sa business cag-cag di si am looy suturloo ah man de jàpp naa ne loolu Macky Sall président de la république da ko war a saluer maanaam kon nguur gi créé wul ay emploi yéen ngeen créé seen emploi boobu ñu bëgg ne ngeen bàyyi emploi boobu loolu nga bëgg wax. waaw mais loolu boo ko ko teree après day tax booy delluwaat ci lu ñu nekkoon. di agressé di sàcc te Sénégal mérité wul loolu jeunesse bi conscient lañ am gars ku leen jàppale ñu liggéey donc man su ma débloqué sama benn quatre cent quatre vingt mille dindi ko moto commencé def cag-cag donte maa ngi doon def lu ñaaw man mosuma ko def mais exemple donte maa ngi def lu ñaaw. man su ma ñëwee jënd sama moto commencé càq-càq di si am 2000 journée 15000 journée 20000 ah mais kooku saa waay lan lay dox di dem uti la alalu jàmbur tey ñaata responsable ñoo xam ne tey ñooy bootu sa ginnaaw. dëgg yàlla am na ay fonctionnaires yi amuñu amuñu ay journée 10 mais loolu sant yàlla yàlla moo bind te yemalewul. maçon laa doon liggéey quoi si laa doon nekk. waaye maçon diis na de. si laa doon nekk di si liggéey chaque jour su ma comparé li ma si daan am ak tey jii li may am si mboto bi du ñu benn. ñaata nga doon am ci maçon parce que journée 3000 laa si daan am te tey jii nii cag-cag bi may liggéey lu mu dee dee dee naa si liggéey journée 10 000 wala lu mu dee dee dee lu mu gaat gaat gaat daal naa si am sax 7000 bu ma wàccaalee. kon cag-cag moo gën dox maçon bi. moo gën a dox maçon bi. waaw ah, léegi nag gouverneur ne non tey jii parce que lii nii bu ñu ko arrêté tey jii nii ñun lan la ñuy def quoi ñun lan la ñuy liggéey ñu xanaa nga delluwaat que maçon boobu noonu tey jii nii man damay yëkkati ciment ba dee yëkkati brique ba dee tax rip am si benn 3000 te lii nii donte maa ngi risque sax si kaw tali bi mais yàlla mu may defal sutura maa ngi siy daw di ci wàcc ci jàmm di ci am li ma ci am di ci jàppale samay waajur di ci dimbali ku nekk mais loolu noonu tey jii nii mën nañu mu muñal quoi parce que daw si tali bi ñëppay daw si tali bi fii ku nekk tey jii da ngay daw si tali bi mais li li wóor ba wóor mooy ñu ñaanal la nga am jàmm si kaw tali bi quoi mais tey jii nii lii bu ñu ko bëggee interdit na metti trop si ñun. donc gouverneur dañu delloowaat ñu sarax ñu ngir yàlla na bàyyi. jeunesse bi liggéey comme gars yi créé nañ seen i propre emploi di daw te léegi nañ xam ne dakaar léegi dafa saturé temps la nit ñi di liggéeyee tey dëgg la ñu nax taximaan yi ñoo far ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ku nekk da ngay ut looy yóbbu sa kër tey li may dem am benn urgence boo xamante ne damay def 15 minutes yoon bi mais ma fay moto mu defal ma ko 5 minutes moo gën tali bi dafa xat donc kooku noonu tey di suturloo ah waaw kooku war nga koo wax jaajëf boo ko waxul jaajëfal waroo koo ne bul bul def li ndax fii bëri ñu nga xamante ni tey boo leen interrogé boo demoon ba seen biir kër yi ñoo ngi yor seen njaboot ci li ñu yor nii moto yu ñu yor nii yi ko dawal ci loolu la ñuy ci loolu ñuy sukkandiku pour mën ci yor seen njaboot ci la ñuy joxe dépense suñu xëyee waaw dëgg la nag même bu li amul woon jàpp yi métti na ñu nga ñun teguñu fenn benn instant quoi ñun teguñu fenn. loolu nag jàpp yi métti na mais est-ce que aussi am ngeen ay kayit. waaw bëri si ñu am kayit ndax man ba man man mi wax ak yow nii maa ngi kayit yu complet mais bu ñu la jàppee amul leneen lu nga xamante ne nii mooy loolu mënuñ la bàyyi nga rëcc foo jaar ñu bindal attestation doo xam ban infraction nga def foo jaar ñu bindal attestation loolu daal mooy wàllu xolal. moo tax attends attends attestation dinañ ci bind ban infraction lu la luñ la luñ la bindal rek ci loolu ci loolu ngay dem sukkandiku mënoon na jaaruma sans interdit parce que bind nañu ko ba ñu dem. man mii di wax aw ma mais am naa assurance am naa kar grise c'est yaa ngi mais tamit du def dara loo xamante ni damay indil gàllankoor mooy li ñuy wax ay sàcc wala di yab ci ay supporter ci ay moto def lu ma neex déedéet damay dawal correctement respecte tamit nombre yi ñuy teg ci kaw tali bi. ban appel ngeen di lancé gouverneur pour que yéen ngeen liggéey ci jàmm. gouvernement daal liñ koy liñ na xoolaat na xoolaat affaire bi ndax bu ñu daw bu ñu a métti quoi benn instant man mën nañu tegal comme leneen raison ne chaque mois da ngay dem nga fay nga verser sa lépp dafay nekk mënoo rëcc mënoo réer mënoo def lenn sa lépp dafay nekk bu ñu gis tey jigéen ñoo xamante ne ñuy liggéey si secteur informel wala secteur privé tey nga war a dugg huit toog si tali bi embouteillage bi la rey nga war a dugg ci embouteillage bi dix heures mais dangay préféré jël benn moto woo ma benn tey alors maa soo nekk kaay jël si ma mu yóbbu ko rapidement moo gën a gaaw xam nga li ma la donc dëkk bi moo évolué taximaan yi tamit nañ xam ne mbir mi mooy demee noonu bu njëkk ay kaar lañ doon wax ah léegi ay Dacia ñëw léegi cag-cag ñëw donc jamono ju nekk ak li muy laaj mais gouverneur ah ak autorité yëpp ak ñi war a wax nañu dimbali te xam ne saa waay jeunesse bi bu ñu amee benn business bu ñuy jàpp muy wax càq-càq je pense que dañ leen a war a encouragé. dañ leen a war a ñaanal te xam ne saa waay gis nga ku doon def lu ñaaw nga gis ko muy commencé di liggéey kooku lu mu koy talatee mais boo leen teree après yow jeunesse bi dañuy fippu te ñun ñu ndax ay policiers ñu ñëpp ay doomu ndey lañ ñun mérito ñu jàkkaarloo kenn di marché wala di def dara duñ def non à la violence mais dañ koy ñaan mi nga xamante ne moom moo nekk ci kaw. la gestu gars yi nga xam ne amaguñu doole mu bàyyi leen ñu liggéey foraatu tey am na ñoo xam ne tey comme li ma la doo wax léegi dépense ñoo koy joxe mais dafa metti sa waaye nga toog liggéeyoo ñu woo sa kër nangam te munoo ko faj ci gor la dafa metti ah. waaw donc nañ dawal yërmande yërmande rek Sénégal nañ am yërmande am tawféex ñi si kaw ngelawaay nañuy gën a gestu ñi si suuf waaye ñi si suuf tamit nañu gën a wekk ñi si kaw te xam ne c'est le Sénégal ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. jaajëf waay